aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi fii ci madinatu munawara dëkku yonent bi alayhi salaatu wa salaam jumaa ji defe naa ne tabaarakallaahu ñëpp xam nañu maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna fee nekk fukki fan yaa ngi noonu fukki guddi yaa ngi noonu tabaarakallaahu tey ñu nekk ci weeru at waaye daje ci bërëb yëpp alayhi salaatu wa salaam laay laay maa ngi lay nuyu tabaarakallaahu Chérif Aïdara Karara mi ngi nii tabaarakallaahu docteur Hassan Diop génn fii ci jamaa bu mag bi waaye suñu mbokk suñu soppe tafsir Abdourahmane Gaye ñëpp xam tabarakallahu kon chérif ñoo naa ñu ko jox guddi yaa ngi noonu bëccëg yaa ngi noonu mën naa ngi noonu fii de bu ñu nee ngaay neex na mexee tax waaye bu ñuy wax fii bu dee ngaay mexe bi mooy fii jàkk ji jumaa ji nga xamante ni li mu ëmb benn rakk junni rakk waaye kan la ëmb xeyru xalqillaahi muy kan muy Seydina Mouhamed sangub Seydil Hadj Malick yaakaaru maam borom Touba maamu Cheikh na Cheikh Sadio Ebihi muy kan muy saydil wujudi wa qiblati shuhudi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tëdd ci béréb bii nga xamante ni moom rek moo sañ a jël baaraam dëyam dóor ci dënnam ni ana min allahi wal muminuuna min nii keneen ku dul moom sañu ko ana min allahi wal muminuuna min nii yàllaa dindi ci leeram bind ma man rasulillahi séddoo ma dindi sama leer bind ci mbindeef yëpp sédd ma leen yonent bi ne yéen ñëpp mën ngeen amal affaire waaye man maa am affaire ak yàlla bu leen yàlla di jox da koy jaarale ci man ma tasaare leen ko lu ngeen jaamu yàlla mu néew mu bëri sama loxo ndey joor la koy yàllay teg mu tëdd ak waayam jooju di jaraafam jooju di kan di Aboubacarin Siddiq yonent bi ne Aboubacarin kal labani fi safa Babacar ak meewayam loo gis muy ñuul bokk ca Aboubacarin kal matari ayna ma waqaa nafaa nee na Babacar ak tawayam saa yu ñëwee am na njëriñ kooku la moom sëñ Bamba di wax naan Aboubacarin zu sidqi wal wafa rafiqu nabiyu Mustafa al gaar an abahu waaye ku nekk ci wetam Umar ibnul Xattaab kon jàkk ju tedd ji lépp lu fi balle ci ay leer ci ay yiw yal nañ ko yàlla nangul jël ko tasaare ko ci seen Sénégal ñu nekk nii ak Iba doomu Maam Raan Laye nekk nii ak ambassadeur u yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ambassadeur u alquranu karim di tafsir Abdourahmane Gaye docteur mii nga xamante ni fii la génnee muy Medinatu na la may wax bariku bu fees dell ak diwlin ku ca tàbbi boo ca yàggee niin boo ca yàggul niin waaye Abdoul Aziz sa turandoo wu turandoo muy maam Abdoul Aziz si ka baax radiyallahu anhu la doon wax naan xubbu taaha lil muslimina najatun wa amaanun min hawli yowma liqaa'i tabaraka allahu madinaa ngi noonu summa salatu ala almuxtaari ma talaat chamsu nahari wa ma qad sha'sha'a alqamar summa rida an abi bakri xalifatihi man qama min baadihi li dini yatasul wax nga ko léegi wooyu an abi xafsin faruqi saaxibihi in qawlu fasl fi ahkaami wa amal parce que Abdourahmane madinaa ngi noonu tabaarakallahu salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Chérif Mamine Aydara mi nga xam ne maamam lañu fii nuyu macha allah xaaji balaay waaye nuyu borom xam-xam bi nga xam ne allaama la di docteur Assane Diouf Cheikh ñu ngi lay nuyu bu sàmm fa tabaarakallaahu ak suñu mbokk yi taal kante fii wax ji mën na bañ a ndax ñu ngi ci fan yi nga xamante ni mooy wal fajiri wala yaalin ashr fu fukki guddi yooyu suñu borom subhaanahu wa taala di tudd ci suratul fajiri dugg nañu ko tey la am ñaari fan ñu muy weeru zulhijja bii nga xamante ni ci la ñu xam nga yàllaa ngi wax subhaanahu wa taala ci biir alquran wazkurullaha fi ayaamin maadudaat fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa mbooleem at mi fukki weer yi ak ñaar comme ni ko yàlla waxee inna iddata shuhuri inda allahi isna achara shahran fukki weer yi ak ñaar weer ga boo génnee weeru koor weer wi ñu nekk di zulxijja def ci gën ndax lan zulxijja bii ñu nekk ci la yawmu tarwiya nekk muy bisu juróom-ñetteel ci weer wi ñu nekk ñu war a dem fanaa di mu naan ci la yawmu taasi a nekk muy bisu arafaat bi nga xamante ne arafaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ko ci dugg ko taxaw Arafat ak heure boo fa taxaw lu mu gàtt gàtt nga génn fa di duutee di am benn sikki sàkka ci man dese naa bàkkaar nee def nga bàkkaar bu rëy ndax da nga jàpp ni yàlla ku soxar la ndax ku dugg Arafat fala la yàlla di jéggale ku dugg Arafat yàlla jéggale sa ay bàkkaar loolu ci weer wi fa tabaarakallaahu ci la ne waaye fukkeelu fan di bisu tabaski bi nga xam ne bu ñuy wax histoire bi mu ngi jóge woon ca kere ba Ibrahima naan doom ji yaa bunayya inni ara fil manaami anniya asbahuka fanzur maada tara foofu la xewee woon fa tabaarakallaahu muy fukki fan yoo xam ne bu ñu boole woon li ci daje ci la ñuy tudd yàlla jaam yi tàllal seen ay loxo borom bi naan ku ñaan ma may la naan malaaka yi kaay leen xool ñi ngeen doon wax kera ba ma ne inni jaayilun fil ardi xalifa qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ñi ngeen doon wax naan dañuy def lu bon dañuy yàq kaay leen xool leen ñëpp summeeku rafle pënd poussière weex kenn du sol dara ñuy woddoo sër bu weex sàngoo benn sër jigéen ñi sol tubay sol mbub mu weex ñëpp tàllal seen loxo naan yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ci fukki fan yi la amee woon fa tabaarakallaahu ñu nekk ci ki waral nag ñu am loolu ndax ñun suñu fan day gàtt xeetu Muhammad sallallahu alayhi bokk nañ ci xeet yi gën a gàtt fan moo tax yàlla daa jël may yi gën a rëy nga xam ni da ngay def lu ndaw am tiyaaba ju rëy yàlla jox ñu ko ndax ñële dañu doon am fan wu gudd mën cee def lu bari ñun nag comme fan wi du gudd jëf doole ji du yàgg yàlla da lay def loo nga def lu ndaw mu fay la ci lu gën a bari la mu doon fay borom fan yu gudd yëpp docteur Assane mi ngi fii ci Madina su Munawara salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf xaajal si Abdourahmane ahlu makkata azra bi sha'niha docteur Assane moo taxaw nii Abdou Aziz Ala Ndiaye jërëjëf yow tam ci taxawaay bi yow mi fekkee jotaay bi tabarakallahu kon docteur Assane lan ngi tëjee ci Walf Fadjri. sëñ Cheikh xam naa li ma ciy li ma ciy wax du bari waaye damay wax rek ne euh, fi ñu nekk nii jamono ji ñu nekk nii ñetti ngëneel dafay dajew mooy li yàlla bind bëccëg yëpp fan yi moo ci gën bëccëg bu yàlla bind bu jant bi fenk fan yi moo ci gën mooy li tàmbalee premier jour weeru tabaski ba bañ àgg ci fukkeelu fan yu bis ba ñuy tabaski lu yàlla bind jant mës a fenk rek bis yooyu ñoo ci gën guddi gu yàlla bind guddig leeratu xadri moom moo ci gën place bu yàlla bind fii moo ci gën borom xam-xam yi wuute nañu Madina ak Màkka fu gën waaye ñoom ñëpp d'accord nañ en unanimité ne fii ñu denc yonent bi sallallahu muy raw de moom moo gën lu yàlla mën a bind kon boole nañu saraful makaan mooy place bu tedd boole nañu saraful zamaan mooy waxtu wu tedd mooy ci weeru tabaski gii nga xam ne moom la ñu nekk boole nañu tamit nekki ki gën nga xam ne li yàlla bind mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu denc ko fii kon boole nañu ñetti ngëneel kon pour ñu waxtaan wi gudd rek loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu fi dajale ñu ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu nangul ñu euh, sunna la nag ci weer wii fukki fan njëkk yi lépp loo ci doon def lu baax bu yeboo nga ful ko ndax borom subhanahu wa taala yonent bi dafa nettali ne borom bi nee na amul jëf buñ may defalal bu nga xam ne moom a gënal ci fukki fan yi lu dul jëf ju nga xam ne moom lañ ma defal ci fukki fan yu njëkk yi kon nag jaam bu ko buuroom waxee ne ko lépp loo ma defal kat ci bis yi nga ma gënalee kon jaam boobu war naa mën a gën góor góorgóorlu pour gën a ful la nga xam ne moom la ci doon def comme li oustaz Tafsir wax ne li ci dajaloo moom moo bari ci ay ngëneel mooy arafa musdalifa yawmu tarwiya ak ray googu nga xam ne moom la ñuy tuur deret ci bisub tabaski kon xaaja abdallah ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla mu yàggu ñu fee dajaleel si ñu mën a ñaanal ñaanal min yàlla amin bi yàlla na yàlla fa ci aajo yëpp ci barke bismillah bi barke weer barke guddi yi barke kaaba gi barke